Serigne Mbacke Diam Serigne Mbacke Diam mi ngi feeñ jamono nag ci atum 1904 ci suuf sii nag waajuram nekkoon ak maam Thierno Ibrahima faati Mbacke ndaamal daaru nag di daaru Marnaan nag ci Touba ci dëkk boobu nag la feeñee jamono nag ci atum 1904 muy doomu soxna faati Cekkan Diop ak moor Mor bu Mbacke moom Serigne Mbacke jam nag bi mu feeñee jamono nag ci atum 1904 waajuram Serigne Mor bu Mbacke mi ngi ko tudd nag Serigne Touba Cheikhul Khadim mu bokkit nag ci turandooy Serigne Touba Cheikhul Khadim ñu koy wooye nag tur wii nag di Serigne Mbacke turandoo cheikhul xadim wi nag sëtu maam maaram mbàkke la sëriñ mbàkke jam doomu sëriñ moor bu mbàkke la sëriñ moor jëbu mbàkke doomu sëriñ mbàkke mati la sëriñ mbàkke mati doomu sëriñ ahmadu xari jóob mbàkke la sëriñ ahmadu xari jóob mbàkke doomu maam maaram mbàkke la muy sëtub nag maam maaram mbàkke moom sëriñ mbàkke jam nag am na ñu mu bokkal soxna faati cekkaan jóob ak sëriñ moor jëbu mbàkke ñu mën cee ràññee nag soxna assu mbàkke bintu soxna faati cekkaan faati cekkaan Diop ak sëriñ Mor Jëbu Mbàkke sëriñ maam Cerno Mbàkke ibnu soxna faati cekkaan Diop ibnu sëriñ Mor Jëbu Mbàkke ak moom sëriñ Mbàkke jam ibnu soxna faati cekkaan Diop ibnu sëriñ Mor Jëbu Mbàkke ngir xamale leen nag njaboot gi mu bokkal soxna faati cekkaan Diop ak sëriñ Mor Jëbu Mbàkke nag ñoom ñooy kan soxna Ummi Mbàkke guddul nag aw fan sëriñ maam Cerno Mbàkke itam nag guddul aw fan doomu ndayam ji nag di soxna Assu Mbàkke bi mu matee dem kër sëriñ Moodu Faati Tuuti Jóob nag lañ ko jébbaloon Diop nag benn bant nag lañ am muy sëriñ di Diop moom soxna Assu Mbàkke nag bi mu jógee nag ci loxoy sëriñ Moodu Faati Tuuti Diop nag lañ ko jébbal sëriñ Mbay Mbàkke di jarbaatu sëriñ Ceerno Aysa Mbàkke soxna Assu Mbàkke nag moo sëriñ Mbay Mbàkke nag amuñu nag ak njaboot ginnaaw bu soxna Assu Mbàkke jógee nag ci loxo yi sëriñ Mbay Mbàkke lañ ko jébbalaat nag ku ñuy wax sëriñ Cheikh Jigal jóop waaye moo sëriñ Cheikh Jigal Diop nag amuñu nag ak njaboot kër yi soxna Assu Mbàkke dem njaboot yam fa am ñooy jarbaati nag sëriñ Mbàkke jam yi moom sëriñ alxuraanul karim la ko waajuram nag jël jébbal ko nag rakki boppam di sëriñ Moodu Xari Mbàkke ngir mu yar ko nag jàngal ko ci loxoy nag waajuram di rakki waajuram nag di sëriñ Moodu Xari Mbàkke ci la jànge alxuraanul karim ci la jànge xam-xam foofu itam nag la tarbiyoo foofu itam nag sax nag la yaroo léppam daal rakki waajuram jii nag waajuram doyloo woon di sëriñ Moodu Xari Mbàkke nag moo ko ci def laata muy jóge sax nag ci loxoy sëriñ Moodu Xari Mbàkke di toog nag toogaayu waajuram sëriñ Moodu Xari Mbàkke itam nag faboon na ñaari doom nag jébbal ko ko muy soxna Busa Mbàkke Mbacke mu soxna Boussa Mbacke moomu nag ñaari bant nag lañ amoon muy sëriñ Cheikh Mbacke ak sëriñ Koso Mbacke bi soxna Boussa nag jógee ci loxoy sëriñ Mbacke jam mi la ko sëñ Modou Xari nag joxaat beneen doomam muy soxna Njóoba Mbacke mook soxna Njóoba Mbacke nag ba tey nag am nañ ak njaboota ñu mën ràññee nag soxna May Mbacke soxna Faati Moor Mbacke sëriñ Fàllu Mbacke sëriñ Cheikh Awa Balla Mbacke ak soxna Maam Faati Mbacke waajuram nag moo ko yar jàngal ko mu wéy des nag ci ron ay waajuram sëriñ Modou Xari Mbacke ak sëriñ Moor Jëbu Mbacke nekkit nag di nag nag tarbiyewu ba nu fi waajuram nag bàyyi ko ci atum 1934 mu doog toog nag toogaayu waajuram dafi kim nag lu takkoo takkoo takku nag ci roon waajuram suuf yi nga xam ne nii nag waajuram nag bàyyi woon na ko fi mu yeesalaat ko lu mel ne jam mbàkkee ak karaa thiel taalibe yi fi waajuram bàyyi woon itam nag mu sàmm leen ay rakkam itam nag mu sàmm leen ba tax na nag képp ku mu séqal nag sëriñ moor jëbu mbàkkee tudde na la doom waaye képp itam nag ku mu séqal nag sëriñ moodu xari mbàkke tudde na la doom fexe na itam nag ba kër ñaari waajuram yooyu dëkk nag ci ron sëriñ Moodu Awa Balla Mbàkke def ko nag maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaroom di ko xoole itam nag seexul xadiimam lu takkoo takkoo takko itam def na ko ci ron sëriñ Moodu Awa Balla Mbàkke ñi ko xam nag wax nañ ne moo nekkoon nag daanaka loxo nday jooru sëriñ moo du Awa Balla Mbàkke nag ci wàllu nag yenn nag ci liggéey yi ndax bi ñuy natt nag dëkk bii nag di daaru muxti moom moo ko lotise mook sëriñ Seex si la diiwaan bi ñuy joxe pàkk yi itam ci loxoom itam nag lañ tegoon pàkk yi mook sëriñ Seex si la diiwaan dëkkub sëriñ Moodu Awa Balla Mbàkke bii nag ñu tudde Kara Thiel bi ko sëriñ Modou Awa Balla Mbàkke nag di yeesal moom itam nag moo nekkoon nag jëwriñu Gorba ba coow loolu nga xam ne nii nag amoon na fa ci dëkk boobu nag di Kara Thiel moom na a am dëkk na bu muy liggéey la suñ boroom jàmbaar googu mu amoon nag ci ron sëriñ Modou Awa Balla Mbàkke mën ko koo méngaleeg njàmbaarte nag di waa waajuram amoon ci ron maam Cerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru soo delloo nag ci marché bi Cheikh Moussa nag defaloon waajuram nag sëriñ Mor Jëbu Mbàkke Mbàkke sëriñ Moussa Ka nag mag ñuy wax nag taxawaayu waajuram nag di sëriñ Mor Jëbu Mbàkke taxawaay nag bu mu amoon nag ci ron maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru ci biir marsiya boobu nag Cheikh Moussa Ka nag mi ngi ñuy xamal ne bëtum maam Ceerno nag su masaa xonq sëriñ Mor Jëbu nag dafaa nekku noonu sëriñ Mor Jëbu nag meloon ci ron maam Ceerno Ibrahima Faati moom itam nag taxawaay bu toll noonu itam nag la amoon ci ron sëriñ Moodu Awa Balla su bëtub sëriñ Moodu Awa Balla Mbàkke nak masaa xonq sëriñ Mbàkke jam nag dafaa nekkul waajuram nag sëriñ bëggee fab daaru muxti nag boole ko nag ci ndóoyéen taxawaay bu yaatoo ba loola nag mujj fànq moom itam nag sëriñ mbàkke jam bi sëriñ Moodu Awa Balla Mbàkke nag di gor nag dëkkam boobu nag di Madina moom sëriñ mbàkke jam nag taxawaay bu yaatoo yaatoo yaatu nag la ci def ba sëriñ Moodu Awa Balla Mbàkke mën a gor nag dëkkam boobu nag di Madina bi sëriñ Moodu Awa Balla Mbàkke nag goree nag Madina nag ba noppi moom itam nag yeesalaat na suuf soosu nag waajuram amoon foofu ci diggante Karaaceel nag ak Madina nag sëriñ Moodu Awa Balla Mbàkke Mbàkke mu tudde ko nag karaaceel karaaceel googu itam nag coow lu méttee métti sax amoon na fa ci diggante sàmm yi nag ak lenn itam nag ci ak njabootam coow loolu ci amoon am na ñoo xam ne nii sax ci la ñàkke seen bakkan ñu mën caa ràññee nag sëriñ Mbay Ndaw nekkoon nag jëwriñu nag sëriñ Mbàkke jam ci côté sàmm yee itam nag am na ñoo xam ne nii itam nag ñàkk nañ ci sax nag seen bakkan mu àndoon nag ak góor yàlla yu takkoo takkoo takku nag di liggéey ngir jëmmi sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim ñu mën caa ràññee nag ku ñuy wax sëriñ Aale Njaay sëriñ Aale Njaay mi sax moom la dénkoon na sëriñ Abdoulaye Aram sëriñ Modou Thiam sëriñ Dame Sall sëriñ Ibra Dieye sëriñ Modou Wacc sëriñ Cheikh Jigal Diop sëriñ Makhtar Ñaan sëriñ Cheikh Ndaw sëriñ Abdou Ndiaye sëriñ Abdou Jaxate sëriñ Coom sëriñ Bàcc Seck ak ñeneen ak ñeneen yeesalaatoon na nag tooli waajuróom yi nañu tudde jàmm ba tax na itim nag ab adresse saa boo tuddeew turam danga ca teg nag suuf soosu nag waajuróom moomoon nag di jàmm moo tax nag ñu koy wooyee sëriñ Mbàkke jàmm daana dem itim nag ci dëkk bu ñuy wax Tabbe Cissé wom wa moom turandoo cheikhul xaddim wi mu toog ko nag toogaayu sëriñ moor jëbu mbàkke ci 1934 ba ci atum 1984 ñaari doomi sëriñ moodu xari mbàkke yi itam nag moo leen yar muy sëriñ taala mbàkke ak maam koso mbàkke taxawu sëriñ moodu awa balla mbàkke nekk itam nag jëwriñam di ko xoole maam ceerno ibrahima faati mbàkke ndaamal daaru ci la sax nag ba ni mujjee gis sëriñ moodu awa balla mbàkke ci atum 1982 mu jokku nag ci ñaareelu xalifa maam ceerno ibrahima faati mbàkke ndaamal daaru Xuddoos Mbàkke ñaari at nag la nekk ak sëriñ Abdul Xuddoos Mbàkke génn àdduna itam Xuddoos Mbàkke sëriñ Abdul Xuddoos Mbàkke itam nag seede ko nag seede bu am solo wax na nag jëmm ji làqu tey ku ko gis nag da nga texe moom sëriñ Mbàkke jam nag bi matee jël soxna ñu boole ko nag soxna Anta Cissé mook soxna Anta Cissé nag am nañ ak njaboota ñu ràññee ci nag taawam ba di kim faye woon nag Cheikh Mamadul Moustapha Mbàkke ak soxna Xari Mbàkke yoraatoon na nag soxna suñuy wax soxna Faati Ñang mook soxna Faati Ñang nag am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññee sëriñ Mbàkke Mati mën cee ràññee nag sëriñ moor jëbu mbàkke ak soxna assu mbàkke yaraatoon na soxna suñuy wax soxna màggat njaay mook soxna màggat njaay itam nag benn bant lañ am muy soxna anta siise mbàkke di kim fayee nag soxnaam su njëkk sii di soxna anta siise yoraatoon na soxna suñu wax soxna faati jaxate mook soxna faati jaxate itam nag am nañ ak njaboot ñu mën cee ràññee nag sëriñ muudu awa balla mbàkke di kim fayee nag doomu maam ibrahima faati mbàkke ndaamal daaru bi soxna nogay mbàkke ñu gën koo xam nag ci soxna màggat mbàkke di kim fayee nag soxnaam sii nag di soxna màggat njaay soxna moomi moor mbàkke daam mbàkke sëriñ omar mbàkke sëriñ moor jëbu mbàkke soxna busa mbàkke ak sëriñ ceerno mbàkke njaboot gi nag ñooy njabootu soxna faati jaxate yoraatoon na nag soxna suñuy wax soxna faati ceerno mbàkke di doomu maam ceerno ibrahima faati mbàkke ndaamal daaru moo soxna faati ceerno itim nag am nañ ak njaboot ñu man ca ràññe nag soxna bintu mbàkke sëriñ njaga mbàkke dikkam faye nag sëriñ maxtaar sàmba jóopa soxna ami mbàkke soxna moomi koso mbàkke yoraatoon na soxna suñuy wax nag soxna busa mbàkke mook soxna busa mbàkke itim nag am nañ ak njaboota ñu man ca ràññe nag sëriñ Cheikh Mbacke ak sëriñ na itam nag soxna suñu wax soxna Njóoba Mbacke mook soxna Njóoba Mbacke itam nag am nañ ak njaboot ñu mën na soxna May Mbacke soxna Faati Moor Mbacke sëriñ Fallu Mbacke sëriñ Cheikh Awa Balla Mbacke ak soxna Maam Faati Mbacke yoraatoon na itam nag soxna suñu wax nag soxna Yaasin Silla mook soxna Yaasin Silla itam nag am nañ ak njaboot ñu man caa ràññee nag sëriñ Moodu Mbacke soxna Faati Ceerno Mbacke dikkim faye nag soxna Faati Ceerno nag mi nekkoon soxnaam yoraatoon na soxna suñu wax soxna Sooda Sow njaboot ñu mën cee ràññee nag soxna maam jëbu mbàkke sëriñ abdul axat mbàkke sëriñ cheikh silla diiwaan mbàkke ak soxna baali mbàkke yoraatoon na soxna suñuy wax soxna nday sàll waaye nag amuñu nag ak njaboota ak soxna suñuy wax nag soxna naar mbay waaye ba tey itam nag amuñu nag ak njaboota ngir xamale leen nag njaboot gii mu am nag soxna yii mu dëkkoo woon nag ñoom ñooy ñan doom ji nag di soxna mbàkke mu matee dem kër sëriñ seexu naa mbàkke moom sëriñ abdul karim mbàkke bu mbàkke kajoor nag lañ ko jébbaloon mook sëriñ seexu naa mbàkke nag am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññee nag sëriñ mustafa Moustapha Mbacke sëriñ maam Thierno Mbacke sëriñ Abdul Karim Mbacke soxna Momi Mbacke ak soxna Khady Mbacke doom ji nag di soxna Momi Faati Jaxate bi mu matee dem kër sëriñ Cheikh Diop nag lañ ko jébbaloon mook sëriñ Cheikh Diop itam nag am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññee nag soxna Marema Diop soxna Sooda Diop soxna Ndey Diop sëriñ Bas Diop sëriñ Amsa Diop sëriñ Koso Diop soxna Ummi Sow Diop soxna Ndey Mbacke Diop ak sëriñ Fàllu Diop doom ji nag di soxna Maguette Mbacke bi mu matee dem kër sëriñ Alaaji Mor Samb nag lañ ko woon mook sëriñ alaaji moor sàmb itam nag am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññee nag sëriñ xaadim sàmb sëriñ basiiru sàmb sëriñ moustapha sàmb sëriñ abdoulahat sàmb soxna moomi sàmb ak soxna anta sàmb ginnaaw bu soxna màggat nag jógee nag ci loxoy sëriñ alaaji moor sàmb lañ ko jébbalaa nag ku ñu wax sëriñ ibrahima jóob moom sëriñ maxtaar sàmb jóob mook sëriñ ibrahima jóob nag am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññee nag soxna aminta jóob ak sëriñ sàll jóob doom ji nag di soxna faati am di mbàkke bi mu matee dem kër sëriñ am di jóob nag lañ ko jébbaloon mook sëriñ am di jóob nag am nañ nañ ak njaboota ñu mën cee ràññee nag soxna màggat Diop sëriñ alaaji Diop soxna assu Diop nag ñu gën koo xam nag ci soxna nday Diop sëriñ koso Diop soxna may Diop soxna Faatija Diop maneen sëriñ koso Diop ak sëriñ xaadim Diop doom ji nag di soxna bintu Mbàkke bi mu matee dem kër sëriñ gaawaan Mbàkke nag lañ ko jébbaloon mook sëriñ gaawaan Mbàkke itam nag am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññee nag soxna Faati Mbàkke soxna Moomi Mbàkke sëriñ xaadim Mbàkke ak soxna assu Mbàkke ginnaaw bu soxna bintu Mbàkke nag jógee ci loxoy sëriñ gaawaan Mbàkke lañ ko jébbalaat nag sëriñ xaadim Mbàkke Mbacke moom Serigne Cheikh Khady Mbacke moom maam Thierno Ibrahima Faty Mbacke ndaamal daaru soxna bintu nag mook Serigne Khadim itim nag am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññee nag Serigne Thierno Mbacke ak soxna maam Mbacke doom ji nag di soxna Ami Mbàkke bi mu matee dem kër sëriñ Moustapha Absa moom sëriñ Modou Awa Balla moom maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru nag lañ ko jébbaloon mook sëriñ Moustapha Absa nag benn bant lañ am muy sëriñ Amsatu Mbàkke ginnaaw bu soxna Ami jógee nag ci loxoy sëriñ Moustapha Absa lañ ko jébbal nag ku ñuy wax sëriñ Mbàkke Moor ma jigéen mook sëriñ Mbàkke Moor ma jigéen nag am nañ ak njaboota ñu man cee ràññee nag sëriñ Mbay Mbàkke sëriñ Gaawaan Mbàkke sëriñ Alioune Mbàkke soxna maam Mbayang Mbàkke doom ji nag di soxna Faati Yaasin Mbàkke moo taawloo nag Serigne Khadim Diop mook Serigne Khadim Diop nag am nañ ak njaboot ñu mën cee ràññee nag soxna Faama Diop soxna Faati Bousso Diop Serigne Ahmed Diop Serigne Cheikh Assou Faye Diop ak Serigne Moustapha Diop doom ji nag di soxna Moumi Koso Mbacke bi mu matee dem kër Serigne Moustapha Mbacke Mouhamadan Koso nag lañ ko jébbaloon mook Serigne Moustapha Mbacke Mouhamadan Koso nag amuñu nag ak njaboot ginnaaw bu soxna Moumi Koso jógee nag ci loxoy Serigne Moustapha Mouhamadan lañ ko jébbalaat nag Serigne Modou Mbacke moom Serigne Abdoul Khoudous Mbacke moom maam Thierno Ibrahima Faati Mbacke ndaamal daaru waaye ba tey itam nag soxna si nag di doomi koso nag amu fa nag ak njaboot doom ji nag di soxna maam Jóob Mbàkke bi mu matee dem kër nag lañ ko jébbal nag sëñ Ibra Buso moom sëñ Abdou Xarija Buso mook sëñ Ibrahima Buso nag am nañ ak njaboot ñu mën caa ràññee soxna Faati Buso soxna Nday Binta Buso maam Jaara Buso soxna Aminta Buso maam Xari Buso soxna Aji Buso sëriñ Abdu Buso sëriñ Seexuna Buso ak sëriñ maam Buso ji nag di soxna Baali Mbàkke bi mu matee dem kër ko jébbal nag Abdou Lahad Seck saa dàgga mook Abdou Lahad Seck saa dàgga nag am nañ ak njaboot ñu mën caa ràññee nag Saaliw Seck maam Thierno Seck Assou Seck Marème Faye Sall Seck dikkim Faye nag soxna président de la république Assou nag ak Marème mi ay cheikh lañ ba Seck Macky Sall Seck dikkim Faye président de la république Macky Sall ak Abdou Khader Seck njaboot gii nag ñooy lenn nag ci sëti Serigne Mbacke jam yi turandoo Cheikhul Khadim wi nag mi ngi génn àdduna ci feebar bu gàtt nag bu ko tëral ci dëkk boobu nag di daarul muxti di dëkk nag bu mu doon liggéeyale nag maam Thierno Ibrahima Fatim Mbacke ndaamal daaru nag ak taawam ba Serigne dibéer juróomi fan nag ci weeru baraxlu ci atum 1404 nag ci gàddaay gi dibéer juróomi fan yi baraxlu ci atum 1404 nag ci gàddaay gi dëppoog nag muy dimanche 6 mai 1984 dimanche 6 mai 1984 ñu yëgal ko nag ñaareelu xalifa maam Thierno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru nag di sëriñ Abdul Xuddoos Mbàkke sëriñ Abdul Xuddoos Mbàkke itam nag moo ko jullee seede ci moom itam nag lu am solo wax ne nag turandoo Cheikhul Xadim wii génn àdduna di sëriñ Mbàkke jam xam ne nii nag gis nga ko da nga texe ginnaaw bu sëriñ Abdul Xudoos Mbàkke seedee loolu nag ci sëriñ Mbàkke jam mii bésub keroog nag jëmm ji nag dañ koo aw awloo ba ca armeer yi daaru muxti yi nag ñu denc ko fa ginnaaw buñ ko jébbalee boroomam nag ba noppi bari na itam nag ñu def nag ay seede ci moom bésub keroog nag am na ñu wax ne képp koo xam ne nii daal ñi nga doon jëflanteel nag dañoo jub yow doo xam nag njariñul sëriñ Mbàkke jam waaye képp koo xam ni daal ñi nga doon jëflanteel nag jubuñu ci ngay doog a xam nag njariñul sëriñ Mbàkke jam am na soxna suñuy wax nag soxna Asu Jóob Diop bisub keroog itam nag lim seede dafa wax ne sëriñ Mbàkke jam képp ku masaa am nag jafe-jafe nag wala nit nag tooñ la soo masaa ñëw ci moom nag ci ngay doog a xam nag njariñul sëriñ Mbàkke jam fit wa bu doonee loo xam ne nii nag fit lay laaj dana ci taxaw nag ba nga jot nag lañ la xañoon bu doonee alal lay laaj itim dana ko jëflanteeg yow itim nag ba nga jot itim nag lañ la xañoon noonu ko soxna Asu Diop seede itim ni la ko ñu baree baree baree seede nag ñi xamoon nag sëriñ Mbàkke jam soo delloo nag ci way yii ko sëriñ Abdul Xuddóos Mbàkke moom sëriñ Muudu Mbàkke defal mag ñuy wax nag taxawaayu waajuram boobu di sëriñ Mbàkke jam nu mu nekke woon nag ci kaw suufa jàmbaar nag gu mu amee woon surtout maam Maaram Mbàkke nag bu mu yore woon taxawaayam nag ak taxawaayu waajuram nag ni ñu méngoo jàmbaarte gu mu amoon nag ci ron maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru jëwriñ nag gu mu nekkoon nag ci taawu maam Ceerno bi taxawaay bu yaatoo yaatoo yaatu daal lañu sëñ Abdul Xuddoos Mbàkke moom sëriñ Muudu Mbàkke moom sëriñ Moor Jëbu Mbàkke di ñu xamal taxawaay bii nga xam ne nii sëriñ turam ñu teewlu ko yéen gaa yi baari nan dellu seeti way ko waloore tey doomi baari sëñ mbàkke moom jam ma diine dul jam tey dëggi kàngam ba gaa yi baari yoo doomi sëñ moor may bahru anwaar yaa bari ay leer ne gaa yi baari ku nooy la ak wet cosaanamit set mu dond ak mat te bay ba baari kokkee ki maaram ak aale moom daam moo doon cosaanam muk seti baari daam xëri moo saytu léppam ba xëy di yaaram bu mag fa baari sëñ mbàkke yaa baax ba jàll ak mbaax ko xam la la fi boote gaañam jaboote muy moom la sax mat nekkee fa baari ku tedd askan te yaatu man gan baay baa ko tànnoon mu jiite baari sëñ mbàkke yaaram la woon di xaalim bu mag ta séddoom ga wóor na baari sëñ mbàkke xaari la woon te rëy jëf manaa koy jaajëf fa néegi baari yaay dëggi daaru tey dem bi daaru jàmbaari daaru nga doon de baari ak jaamu yàllaam ak fonk sunnaam biir nag njabootam biraale baari yaa bari ay may te doon ay may te amee ak way ndembar ma baari ay xalifaam nag nii la sëriñ daam mbàkke moo fi nekk nag ab xalifaam nag ci atum 1984 nag ba nëgëni ñu koy ñaanal nag suñu borom guddal aw fanam nag te yàggal ko nag ci toogaayu waajuróom bii nag di sëriñ mbàkke jam ak mbooleem nag ñi mu séqal nag sëriñ mbàkke jam sëriñ mbàkke jam nag am na bis nag ñu koy fàttaliku nag ci liñ tudde ak màggal bis bii mu génnoon àdduna nag di juróomi fan nag ci weeru baraxlu su bis bi masaa delsi di fukki fan ak ñett nag ci weeru baraxlu njaboot gi nag daanañ dajaloo ci kër gi mu amoon daaru muxti nag daa ko màggal nag ngir fàttaliku nag xaddim wi màggal ga itam nag mujj nañ ko ba nag ci atum 2016 taqaloo gu mu taqaloog bisub maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru bi moo tax itam nag ñu mujj ko yóbbu ci fukki fan ak juróom nag ci maamu koor di ko màggal nag niñ ko daa màggalee nag ci fukki fan ak ñett nag ci weeru baraxlu ci kër googu mu am nag ci daaru muxti nag ba tey ci teewaayu nag xalifaam bii fi nekk nag di sëriñ daam mbàkke ak mbooleem njabootam gi nag ak taalibeem yi ñu ñaan ca turandoo cheikhul xadim wa nga waajuram nag sëriñ moor jëbu mbàkke joxoon Moodu Xari Mbàkke ñu gën koo xam nag ci sëriñ Mbàkke jam yàlla nañu ko suñ borom fayal nag te yokk ay leeram te taas ñu itam nag ci barkeem lii di jafe-jafey réew mi itam nag yàlla na ko suñ borom saafara ci darajey alxuraanul karim amin alxuraanul karim amin